jëlilaayi maskani Tuubaa baat misras mi abijaayi xayri man abaat asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokki jullit yi mbokki ca kanam gannaaw bi ñu sante yàlla juli ci bi sant Serigne Touba di ñaanal Serigne Mountakha Mbacké xalif général de Mouride mu yàgg fi lool te ànd ak wér gannaaw loolu Touba ci kanam moo ñëw tey ngir fas yéene leen andil comme nim ko baaxoo ci ak leeral ci commission bi ñuy wax commission finance sous commission gestion des fonds muy loo xamante ne bii lum tàmm def la weer wu nekk ngir leeral ci weer wii nag ñuy wax weeru mars deux mille vingt kon dañ koy tàmbalee ci Touba euh, ci zone nationale Touba am na quarante et un cent vingt neuf mille zéro quatre vingt Dakar ci njiital Serigne Bousso ak ci jàppandalu El Ndaw am nañ trois millions six cent soixante mille huit cent Tigo Cash bi dañ gën ko xam léegi ci Free Money am nañ cent cinq mille deux cent quatre-vingt-cinq Orange Money ci jees cent quarante-quatre jees six cent vingt et un jees ci mois de février ak mars am nañ onze millions sept mille cinq cent soixante-six Kébémer ci njiital sëriñ Gora Sylla ci weer wii am nañ six cent quarante mille daayira Baabul Ayaadi Añaam ma nekk ci côté Fouta am nañ ci weer wi cent mille francs Saint-Louis ci njiital sëriñ Rijal Seck ak Soxna Rama am nañ neuf cent treize mille cinq cent Louga sëriñ Moustapha Bassirou Mboup am nañ un million cent quatre-vingt-dix-huit mille neuf cent francs mbake ci njiital Adja Dior Gaye ak Serigne Mama Fall am nañ cinquante mille francs Diourbel ci njiital Soxna Ndey Ndiaye am nañ sept cent cinquante sept mille versement anonyme maanaam versement yi nga xam ne xamuñu ku ko verse deful turam waaye dafa fas yéene barkeelu te nëbbu turam yooyu ñu ngi ci am un million cinq cent quarante trois mille quatre cent quatre vingt deux francs Thiès ci njiital Serigne Mbaye Sall sept cent soixante quinze mille la ñu am Vélingara ci njiital Serigne Mbacke Gueye am nañ cent soixante quinze mille francs Kaolack ci njiital Serigne Moustapha Touré am nañ un million quatre vingt et département Linguère ci njiital Serigne Cheikh Mbacké Joral versé nañ deux cent cinquante mille francs Kédougou ci njiital Serigne Modou Lo euh, nañ trois cent quatre mille Goudéry Serigne Dame Ba moo ñu fa nekkal ñoom tamit versé nañ cinq cent mille francs Joal ci njiital Serigne Bassirou Thiaw ñoom tamit verse nañu trois cent mille francs Kolda ci njiital Serigne Moussa Sène versé nañu deux cent quatre-vingt-quatre mille Fouta ci njiital Serigne Mouhamadou Fadal Dia versé nañu cent cinquante mille francs Rosso senegal ci njiital Serigne Modou Sarr ñoom tamit andi nañ soixante mille francs Matam ci njiital Serigne Ndiaga Diouf ñoom tamit andi nañu quarante mille francs Santhiou Babé ci njiital Serigne Khadim Niang versé nañu soixante seize mille cinq cent francs Casamance ci njiital Serigne Mamadou Khary Gueye versé nañu soixante sept mille cinq cent Bokki Jawe ci njiital Serigne Talla Kane ñoom tamit andi nañu quatre vingt mille francs Fouta Orko Diéré Massar Gueye nekkal ñu fa ñoom tamit versé nañu trente mille francs Kousanaar ci njiital soxna Fatou kan ñoom tamit versé nañu cinquante mille poste Kër Ayib ci njiital Serigne Modou Niang versé nañu ñoom tamit cinquante mille francs Mudéeri ci njiital Serigne Bassirou Ndiaye versé nañu ñoom tamit cinquante mille francs Mbar ci njiital soxna Ndaak Sey ñoom tamit versé nañu cent soixante sept mille extourne bancaire ci banque bu ñuy woowee banque atlantique maanaam li nga xamante ne bi banque bi dañ koy delloo si nekk na sept mille sept cent vingt six francs kër Mbay Fall ci njiital soxna Ndey Jaxate ñoom tamit versé nañu soixante huit mille francs kon boo xoolee total encaissement son national yi maanaam li nga xamante ne bi moom lañ jot ci biir réew mi day tolloog soixante cinq millions six cent soixante onze mille trois cent quarante sept francs soixante cinq millions six cent soixante onze mille trois cent quarante sept francs total encaissement yi son national maanaam li nga xam ne moom lañ jot ci biir réew mi ci ay versement mu jëm si ci Touba ci kanam mi ngi toll ci soixante cinq millions six cent soixante onze mille trois cent quarante sept francs éclairage public maanaam lamp yi nga xamante ne bii Touba ci kanam daf ko jëndoon euh, jàpp ndalal prix bi wàññi ba nga xamante ne bii askan wi danañ ko mën a jëndaat di ko def ci seeni buntu kër ñu tuddee ko jaayante loolu ñu ngi ci amoon ci ay versement luy tolloog deux millions neuf cent trent mille kon ñu dikk ci son Amérique son Amérique bi buñ ci ñëwee dañuy njëkkee Argentine Argentine ci njiital Serigne Pape Soodo am nañ fi quatre cent cinquante mille Canada ci njiital Serigne Pape Amar ñoom tamit verse nañ un million six cent cinq mille États-Unis ci njiital Serigne Souhaïbou Seck ñoom tamit euh, versé nañ quatre millions neuf cent soixante-treize mille kon boo boolee total son Amérique boo boolee lépp li nga xam ne moo jógee Amérique day nekk sept million vingt huit mille francs kon ñu dikk ci zone Europe Europe buñ ñu ci Italie ci njiital coordination bi ci weeru mars wi am nañ deux millions neuf cent vingt six mille six cent quatre vingt dix loolu mooy li nga xam ne moom la ñu versé France ci njiital coordination bi am nañ trois millions deux cent cinq mille sept cent Suisse ci njiital Serigne Ndiaga Aw ñoom tamit versé nañu cinq cent mille Allemagne ci njiital Serigne Abdou Salam Faye ñoom tamit werse nañu huit cent deux mille trois cent quatre-vingt-six francs kon boo boolee Europe bi yëpp day nekk sept million quatre cent trente-quatre mille sept cent soixante-seize francs ci weeru mars bi euh, ñu dikk kon ci son Afrique son Afrique dañuy tàmbale ci Libye ci njiital sëriñ Mamadou Bakhoum ñoom tamit versé nañu cinquante mille francs ñu dikk ci Guinée Bissau ci njiital Serigne Modou Atta Seck six cent quarante six mille la ñu versé ñu dikk ci Guinée équatoriale ci njiital Serigne Morlo un million soixante mille francs la ñu versé ñu dikk ci Gambie ci njiital Serigne Khadim Thian versé nañu six cent quatre mille Mali bu ñu dikkee ci njiital Serigne Aliou Waaj versé nañu cinq cent cinquante cinq mille Tchad ci njiital Serigne Mor Sill versé nañu quatre cent quatre vingt mille kon boo boolee Afrique bi yëpp day nekk trois millions quatre cent quatre vingt quatre mille gannaaw bi ñu génnee ci zone yi kon total bi encaissement maanaam mbooleem li nga xam ne dugg na ci compte Touba ci kanam yi ci weeru mars bi day tolloog quatre-vingt-six million cinq cent quarante mille cent vingt-trois quatre-vingt-six millions cinq cent quarante-huit mille cent vingt-trois francs kon dañuy ñëw ci décaissement yi gannaaw biñ noppee ci encaissement yi maanaam biñ noppee ci li fi dugg dañuy ñëw ci li nga xam ne moo fi génn li nga xam ne moo fi génn nag ku nekk xam na ne Touba ci kanam engagé na euh, ca université bee nga xamante ne bii xalif général de Mouride mu Mountakha moo koy tabax ab immeuble Air Prise 3 boo xamante ne bii euh, ñoo nga ko ca di ko doxal gannaaw loolu nag li nga xamante ne bii moo fa duggagun ci weer wii ci sànce ba toll na ci vingt neuf million sept cent quatre vingt dix mille six cent francs bu ñu jógee ci université bi day ñëw ci poste de santé bii nga xamante ne bii Touba ca mi ngi koy tabax ci quartier bu ñuy wax Daaru Xadim Daaru Xadim boobu li nga xam ne moo fa jot a dem ci weeru mars wi day tolloog neuf cent vingt neuf mille francs ginnaaw loolu ñu ñëw ci fi ñuy wax Boborel poste de santé bi nga xamante ne bii Touba Ca Kanam moo ngi koy tabax Boborel te ku nekk xam na ne sori na ba toll ci phase terminaison maanaam ci jeexital li fa jot a dugg ci weer wii ñu toll mi ngi toll ci deux millions cinq cent soixante dix neuf mille deux cent cinquante francs buñ paree ci poste de santé Boborel dañuy tàbbi ci daara yi nga xamante ne bii Touba Ca Kanam dina faral di. dimbale ay daara ci at mi may wax ak yéen engagé na ci luy tolloog soixante onze daara maanaam juróom-ñaar fukki daara ak benn ci juróom-ñaar fukki daara ak benn yooyu nga xam ne moo fa jot a génn day tolloog deux millions huit cent quatre-vingt-douze mille trois cent cinquante francs deux millions huit cent quatre vingt mille trois cent cinquante francs ci weeru mars wi gannaaw bi ñu ci daara yi dañuy ñëw ci poste de santé bii nga xam ne moo nekk euh, Kër Gol moom tamit comme ni ko waxee ci boobu rek daanaka noonu la demee dafa toll ci phase terminaison maanaam ci jeexital day pare dal léegi moo tax li fa jot dugg bariwul day tolloog sept cent trente et un mille trois cent cinquante francs ci weeru mars bi gannaaw bi ñu jógee ci Kër Gol dañuy ñëw ci poste de santé bii nga xam ne teg nañ xeer yi bu yàggut fas yéene ko tabax ndaam poste santé boobu li ñu fa jot a dugal mi ngi toll ci cinq cent trente deux mille francs ci weeru mars. gannaaw buñ paree foofu ñu ñëw ci li ñuy wax adduction d'eau maanaam mooy quartier yi nga xamante ne bii lu ci ëpp ci sancaan yi lay doon te ndox eggu fa Touba ci kanam di leen defal ay branchement pour ñu mën a am ndox loolu nag Touba ci kanam ren jël na ci quartier yu bari ba ëpp trente sax ci loolu li nga xam ne moo fa jot a dem mi ngi tolloog un million soixante-quatorze mille francs un million cent quatorze mille ci weeru mars wi ginnaaw loolu kon Touba ci kanam bokk na ci li nga xamante ne bi ci weeru mars wi génne na ko euh, muy xeex biñ doon xeex feebar bii fi nekk di mbas mi di coronavirus toll ci quarante cinq million la ci Touba ci kanam génneegun ginnaaw loolu kon dañuy ñëw ci bit bitse euh, massification maanaam ñi nga xam ne ñoom lañ dénk yaatalu Touba ci kanam seen yitte lam laaj li leen ci war lépp budget bi mi ngi tolloon ci six cent quarante sept mille buñ noppee kon dañuy ñëw ci gasoil ak entretien oto maanaam lépp loo xam ne Touba ca kanam dina ko fere ci gasoil ak oto yeeg camion yi euh, tracteurs yi ak yooyu kon day nekk un million trois cent quarante sept mille trois cent francs ci weeru mars bi looloo fi génn gannaaw buñ paree ci loolu ñu ñëw ci budget fonctionnement bu ñu ñëwee ci total se fonctionnement day nekk trois cent vingt deux mille trois cent. kon bu ñu ñëwee ci total salaire charge fixe prise location day nekk maanaam ñi nga xam ne ci kanam ñoo leen di liggéeyloo di leen fay ñi nekk ci siège bi ña nekk ci chantier réceptionniste yi ak yu nuroog yooyu. loolu boo ko totalee day nekk trois millions huit cent vingt deux mille cinq cent. frais bancaire mi ngi toll ci cinquante cinq mille neuf cent quatre vingt neuf. total décaissement quatre vingt neuf million sept cent trente mille six cent trente neuf maanaam lép li nga xamante ne bi Touba ci kanam génne na ko ci weeru mars bi mi ngi toll ci quatre vingt neuf millions sept cent trente mille six cent trente neuf francs total encaissement décaisement boo ko xoolee day moyen trois million cent quatre vingt deux mille cinq cent seize kon li nga xamante moo desoon ci weeru février wii ñu génn ci compte Touba ci kanam yi day tolloog six cent quatre-vingt-sept millions quatre mille sept cent deux francs six cent quatre-vingt-sept cent mille sept cent trente-deux francs kon li nga xamante ne bii moo des ci compte Touba ci kanam yi ci 31 mars bi mi ngi tolloog six cent quatre-vingt-quatre millions deux cent dix-huit mille deux cent li des ci compte Touba ci kanam yi ci weeru mars wi le 31 day tolloog 684 millions 218 mille 216 francs gannaaw loolu mbokk yi kon ñu ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan yàlla mu nangul ñu liggéey bii nga xamante ne bii mboolem murit wala mboolem jullit mi ngi koy def jërëjëf. misras mi abi jaayi xayri man